xontu xar doon dombu góor fii ci Sénégal jamono ji lii di aliment de bétail dafa yokk buñ sukkandikoo ci ñii di yar xar di ko jaayaat ñu fekk leen ca Nord Foire ba tax ñuy woote wàllu metti na trop moom metti na trop wax fa dëgg yàlla dañuy jënd ripaasu Mali bi daanaka su saaku ripaasu Mali mi ngi doon jar bu ñu ay neuf mille dix mille mais léegi essence yi mi ngi ba vingt et un saaku mboq moom daanaka gisatuñ ko sax son de blé bi doon jar huit mille essence yi ñu ngi ko yóbbu si ay douze mille cinq cent ba treize mille yooyu noonu dafa cher trop ba fa dëgg yàlla. ngooñ bi essence bi cinq mille franc lay jar fii lañ taxaw kaas xont bi dund gi si boppam moo cher ñu loolu bu ñu si mënoon jàppale baax na trop. non dafa métti parce que kii garé danga koy fay bâche bi dafa cher bâche bi soo koy loué da nga koy loué genre xam nga bâche dañ koy loué par jour mais da nga nar a calculer durant bi ñu ko jëlee ba veyu tabaski bi. loolu yëpp soo ko globaliser c'est de l'argent xar moom amour la rek xar xam nga yaa ngi koy yar di ko jox muy lekk yow soo xoolee ni nga koy joxee muy lekk après nga ne noonu nga koy jaay fii ba suba doo ko jaay passion la amour la rek da nga koy jaay nii pour jaay rek. njëgu xar daal di cher lool buñ sukkandikoo ci ñoom ñii di jaay xar. waaye itam ñiy jaay bu ñi ngi ñaxtu ndax gisaguñu ay clients. instant bi moom sama gétt fii moom xaru cent 150 sax amu fi. bu si gën a ndaw 250 jëm kaw. instant yi xar gisuma ko si biir dëkk fi sax xar moo cher si boppam. ren daal moom gisaguñ suñu bopp si buum yi de métti na rek moom nag ni mu demee mais instant daal moom métti na moom la ko bëggee dëgg-dëgg am na ñu koy defar ñu ko defaree Pikine dañuy dem jënd daal ñëw dugg si marché bi di jaayaat 200 lañ ko doon jënd léegi daal moom gaa insécurité bi daal di bëri lool waaye nag ñoom ñu ngi xamal seeni stratégie bi ñuy teg ngir garder seeni xar. ñun ñooy gardeel suñu bopp nelaw moom jeex na te léegi daanaka dëkk bi sax wóoratul da ngay taxaw fii si tali bi fii lu nekk fii am mooy loolu il faut nga toog jàkkaarloo say xar mooy loolu di leen xool waaw côté sécurité bi ñun ñoo fi toog fii moom fii moom am na sécurité benn côté. guddi gi moom dafa am ñuy veille am ñoo xam ne ñooy nekk ci journée bi noonu la ñuy sécuriser fii quoi mais côté sécurité comme su desee ay deux semaines après fii day am ay homme de tenue. benn weer des ñu amal lii ci tabaski gi. waaye nemmeeku nañ ni xar yi cher na lool ci jamono ji ndax aliment de bétail bi dafa yokk.